barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mu faydu tiijaan jox ñu ñuy naan. loolu loo xam ne waroon nañ ko wax ndax ni ko nit ñuy dundee moo tax ñu yëpp fàtte ko muy lan muy gàmmu Tayba gi amul kenn ku nokkee waay te new ne itteewoo gàmmu tey ba ndax dafay dafay xew foofa lay xew kon ñu ngi oo mboolem taalibe yi ci turu Mawlana Cheikh al Khalifa Ahmad Tidiane Ibrahim Niass nee mayul kenn gànt képp koo xam ne taalibe bàyyi nga na nga ñëw ci tayba ñi fu ku fu ussi rek sa ootale aussi na ko sante yàlla kon nag ñun tamitam nañ nekk ñu civilisé nekk ñu am sa euh, euh, euh, kattan ci defal baay ndax baay ku ko defal benn mu fay la lu bëree bëri bëri bëri yàlla ñu yàlla gën a yokk tay ku ci ñëw saa yoo ñëwaan da nga dara ran nag moo raw maa ko garanti ku ñëw tay boo fa amul li nga soxla poñ ma incha allah wasalaamaaleykum. barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy